الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما ثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم muy nuyu Waly nee di doomam waaye di jarbaatam nee it di xaritam di soppeem إن أنتم إلا تكذبون nee waali fonkoon ay waajuram la. ba yu mujj yi. nee ba ci fan yu mujj yi. nee bi ko feebar bi tëralee. nee nga bàyyi sa yitte yëpp. nekk ak moom. ne kenn ku ne ci ñun xëy na am nga bés bu mel noonu. ne loolu bu la dalee boo seen la yor lépp da ko ci def ngir bëgg sa wóoju rek jug. ne waaye bu yàlla dogalee. li am solo li am solo. mooy nga xam ni rek li nga waroon a def lépp def nga ko. ne ndax bu dul lool rek ci la rëccu di am. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون nee na yàlla mi nga xam ni moom mooy dogal li ko neex nee yàlla na ko yàlla xare aljana nee waali yàlla may la xolu muñ nee nga xam ne nag responsabilité bi nag léegi lay gën a yokku. ni anni shafaatuhum shay'an wa la yunqidun إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة doon loo xam nekkul loo xam ne dalaa dab daa doon loo xam ne da nga koy judduwaale ci deret la ne sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ba tey diw ñëw na ci moom ni ko sëriñ bi diw de noo bëggoon mu noppi dana ko bàyyi ko mu wax ndax li muy wax ñaari koy bañ ko amut juddu baa ko amut lu mu maye waaye lii ngi si premier ministre seede tey yokku na ci leneen lu ma xam ci yow. Mhm. bis bu yàlla sàkk muy man mboolem sama naw lay ak keneen ak keneen muy ku bëgg lu baax bis bu yàlla sàkk di jànge ci yow. Mhm. ndax lii firndeel la ku xam premier euh, euh, euh, Ba muy premier ministre mi xam ni noppi na fu muy wax ak bakkanam nga lu mu lu mu gëm la wax yal na yàlla guddal sa fan. amiin amiin lii fi ne nag mission la booy doxal rek. Mhm. mission lay boobu booy continuer. te suñu borom bis bu yàlla sàkk moo mais waali li mu ko teral ak li mu ko sagal bi mu génnee ci gouvernement bi mu duggaatee ci gouvernement bi gisul loolu. amul loo xam ne daan na xew ci réew mi te waal bi taxaw sama biir kër. mais amul lenn loo xam ne daan na xew ci réew mi te waal bi ko daan woon ne kii ministre la woon nekkatu ko. te boobu bu ko neexoon mu ne kii ministre la woon nekkatu ko. te dara mënul woon wane ni lii dina ñëwaat. mais te booba kat dara mënul woon wane ni lii dina ñëwaat. mais loolu nag mooy nit ku am ay valeur ndax ne xam na ni waale amoo jot mais bu la gisul woon it déggula woon it mais du taxit mu mere mais wala mu téel la dara mais day jàpp ni àdduna moo indi loolu mais kon waale lii bi mu la dalee mais mu xat lool nee moo tax mu ni faaw ma ñëw diggante nit ak nit. nee bala ñoo dugal benn cër. nee pour mu seere say kanam bokk. nee waalis nit ku baax la. nee xaadim jam yi mën na koo seede. ndax xaadim ja fekk na jataay yu bare bare. nee kon moom day mun lu dul ñaanal. nee mooy li mis jataa wax léegi. mooy waa ji yàlla yàlla dolli sutura. yàlla na la yàlla yàgg sagal. yàlla gën la ko dolli. mais lii nga xam ne yaa ngi ci suñu borom gën la ko dolli. fuulal la ko mais fuulal la ko. aaral ko amiin amiin amiin ba. mais moom bii premier ministre loolu la ñaanal. man de kontaan naa ci yow. nee moom day premier ministre Amadou Ba kontaan na ci yow. te loolu it laa dégg ci président Macky Sall barki démb. nee te loolu it nee na dégg ci président Macky Sall barki démb. bi ñuy waxtaan. nee bi ñuy waxtaan. daf ni ko boo demee jaaleel ma waaj. nee mu ni ko dina fa dem. ni ko xale bu baax la. nee loolu kat président moo nekk koo bañ a wax. sa ñaari waajur. nee sa ñaari waajur. góor ki ak ku jigéen. nee ku góor ki ak ku jigéen bi. li ñu xam ci ñoom ci réew mi. nee li ñu xam ci ñoom ci réew mi. mooy ak taalibe. nee mooy ak taalibe. mooy ak am xel ak xalaat yu rafet. ne mooy xel ak xalaat yu rafet yi nga xamante ne amoon nañu ko. lépp lu mu daan yëkkati mooy sa way jur bu góor. nee sa way jur bu góor lépp lu mu mës a yëkkati. muy wëy. nee muy wëy. daf ko ci teg daf koy teg ci yar ak teggin. nee daf koy teg ci yar ak teggin. ak xam-xam bu rafet. nee ak xam-xam bu rafet. ak ak taalibe. nee ak ak taalibe. yàlla moom lamin wi. wallaay yàqu dara président Amadou Ba ndax lamin wu am barke kenn xamu ko. wallaay. mais suñuy lamin yëpp a am sax barke. mais suñu lamin yëpp am barke. salaamaaleykum wa rahmatulah. wasalaamualeykum wa rahmatulah. ah yàlla daf leen a jox. nee yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daf leen a may. cër boo xamante ne. ne cër bi mu leen may mooy. ah ci diine islam. ne ci diine islam. ñoo ci njëkk a joxe seen bakkan. ne ñoom kat jigéen ñi ñoo ci njëkk joxe seen bakkan.